maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ah, mbokke taalibe yi ñuy seetaan ak yi ñu bokkal nekk fii ci tool yi li ñu indi fii tey nag maanaam ñëw taalibe la ndax eh, sunu sëriñ sunu mag sëriñ Mbàkke Fat Mariamu Njaay ak njabootuk Seex Daaru Asan Njaay ñoo teew fii tant yi ngeen gis eh, ak njaboot gii ngeen gis yëpp njabootuk sëñ Daaru Asan lañ eh, li ko waral nag mooy sëñ Basiiru Mbàkke mu sëñ Abdul Xaadir moo jox ay tool ah, ak ay taalibeem ñu ñëw ci ma bokk ci biir njaboot googa ànd ak ñoom ñëw ci tool yi ngir liggéeyal sëriñ Tubaa loolu moo tax ñu ñëw fi bi may ñëw fii ndax yoonu njëkk tey ma ñëw fi di wax fii ñu taxaw ak Touba mat na cent kilomètres xam naa ne bu néewee ba néew cent quarante kilomètres kon bi may jógee dakaar maa ngi fa jullee fajar rek damaa génn ci jàkka ji rek daal di ku ci oto bi bi may ñëw fii daanaka dañoo accès rek julli tisbaar kon loolu da ngay xam ne lu sori la te amut aw yoon amut tëli daanaka amut raaraa sax bu baax euh, kon ku mel ne sëñ Bass Abdou Khadir maanaam jóge Touba daw cent quarante kilomètres ñëw ba fii mu def fi ay tànt daanaka ay néeg yoo xam ne néeg yu yërëmtalu yu wuteeg yam bàyyi ca biir dëkk ba loolu boo ko gisee rek boo fi ñëwee rek di nga xam ne kii moom am na lu mu bëgg xamoon xaw ma nag li mu bëgg moo ko xam waaye am na lu mu bëgg bi ma ñëwee fii ci dal bi tamit bi ma agsee li ma njëkk a wax sëñ daam dumbe xam ne sama mag la dama ko ne ndeysaan lii de xel koom rek la ma joxaat mooy jamono yo sëñ saari bu nekkee des di woote euh, xel koom ji nii rek lañ ko daan dundee kon kilifa goo xam ne am nga lépp daanaka ba wutatoo dara wala boog lépp sax lu nit di wuti mi ngi xëy di la wut yow nga mën a jóge ci Touba jaar ci ay oto foo xam ne daanaka day yàq oto euh, di ñëw ba am cent quarante kilomètres samp fa sas néegu ñax toog ak sa mbaar mu tàng toog fa du yor say tool di bay loolu ku ko def am na loo bëgg lu bokkut ak àdduna te loolu la sëñ Basirou Mbacke mu sëñ Abdou Khadir def loola nag mënuñu koo natt lu dul la sëñ Touba nekkoon mooy jàng ba xam di jëfee la nga jàng ba noppi maanaam di jaamu yàlla jaamu yàlla gi nag mooy liggéey liggéey bi nag la ca gën a lew mooy bay mbay moomu nag maanaam sëñ Tuubaa ko koo sampe yoonu murit mbooleem seex si tàmbalee ko ci maam Thierno ba ci sëñ Darou seen njaay ba ci eh, sëñ ma ak koo mën a jël dañoo amoon ay tool ba ci seex Moustapha sax mi taawoo ak sëñ Fallou ñoom ñëpp ndindeeg bogoog gi ngay dégg yëpp ci ay tool lañ ko ay tool la woon rek yu dem ba amu tur xam ngay tool bu fa nit ña newee bu yàggee mu ami néeg bu yàggee néegee ami ami wanag mu mujj nekk kër waaye mboolem dëkk dëkk yi ngay dégg dëkk dëkkaan ci yoonu murid yëpp man ngaa wax ne ay tool la woon yoo xam ne dañ cay bay kon bu ñu demee tey ba jamono toll fi mu toll bu fekkoon Serigne Bass moom xaalis lay defe naa ne du oto daw cent quarante kilomètres yoo xam ne fi mu ñëw amut courant amut ndox mu baax amutub tali amut dara bu doon xaalis lay wut wala adduna moom du jëm si nii waaye kon dangay xam ne la Sëñ Tuubaa nekkoon moom loola lay jéem a nekk ñun itam la suñu maam ya nekkoon ci kanamu sëñ Tuubaa ñu ne loola la ñuy a nekk loolu moo ñu dajale fii loolu moo indi fii sëñ Bas waaye ñun it dañoo baaxoo fu sëñ Tuubaa nekk fuñ fu mu ñu woo bu doon bar sàqit ñu wuy ji ko lum ñu sant dinañ ko def looloo tax maanaam bu doon tool yi gannaaw Mali la nekkit bu nee ñëw leen danañ ñëw loolu moo tax am nañ mbégte loolu yoonu wi metti na euh, boo yegsee daanaka da ngay sëlmu doo ko mën a ñu doo ko mën a nuyoo ji ndax euh, maanaam poussière bu bari waaye nag li muy mel noonu lépp maam noonu lañ ko bëggee noonu lañ ko defee ndax adduna nit ki du caagi ne li neex rek moo lay jariñ du caagi ne li nga xam dong it moo lay jariñ léeg-léeg ñu woolalu ci loo xam ne xamoo ko sax te loolaay sa njariñ léeg ñu woola ci loo xam ne du sa ban du bànneex waaye nag loolaay njariñ li te ñun sëñ Tuubaa nag wutuñ ci njariñ wutuñ ci lor xam nga luñ ci lor wutuñ ci leen liñ ci wut mooy njariñ liñ ciy jariñ nag sëriñ bee ko xam saa bu ne ñoo nii la rek noonu lañ koy defee léegi rek maa ngi ciy waxtaan foofu ci mbaar mi ñu toogoon nag sëriñ bi yoonu murit moom xaw ma luñ manqué waaye niñ gone yi moom am ñàkku ñuy gone te gone yi tayee luñ waaw gone yi tayee luñ bu doon tool yi bu doon fukkit jëm weer danañ fi nekk di ko def soo demee ndakaaru café goo seen nit bokk ko di jaay laaj ko Touba la dëkk koo seen mu yori montar di jaay kuy jaay tàndarma kuy jaay fëgg jaay mbooleem xeeti njaay yi nga xam ne nit ku tayal du ko def gonek murit koy def surtout gonek bawal la ñuy jóge boo demee ba dakaar sax pàkk am na foo xam ne pàkk euh, euh, làmbaay lañ koy wax wala pàkk bawal bawal yi kon loolu day wane ne sëñ Tuubaa moom def na ci ñun nangu ak nangoo liggéey ak nangoo sonn bëgg bëgg a dunde suñu ñaq li ci des nag mooy àdduna day daw ndax bu njëkk bañ daan bay aw fas boo ko mënee womat rek mën ngaa bay léegi nag da ngay jàngiwaat cataplan noonu la ñuy jàngee tamit suuf si liñ koy def yooyu yëpp xam-xam daal lañ amagut bu doy waaye moom bu fekkee état bëgg nañu am autosuffisance bu lëkkaloog sëriñ sii nu tàllal tool yi maanaam jàngal nu xam-xam ba nga xam ne kenn ku nekk boo ba ak sëriñ bay lu yàgg boo fi jógee da nga mën a dem muti sa yëfi bopp di ko bay maanaam nga xam ne loolu xam lay doon boo xam ne état ko moom ndax sëriñ bi moom alxuraan la am jox nañu ko gëm yàlla ak sëñ tubaa la am jox nañu ko nanguloo suñuy xol ak suñuy cër waaye nag xam-xam bi àdduna laaj pour liggéey kooku moom manqué nañ ko su dee dëggee dëgg loolu nag dafa nikkut ci ñu ni ci sëñ bi la nekk waaye état moo am lu mu ñu war a ci participer mi ngi mel ne fii rek sëñ bi mën na fee ñëw waaye mënu fee indi courant bi ko état koy indi noonu la amee ci jëfi àdduna yi yoo xam ne maanaam état ko mën a def ci suñu biir bopp waaye daal bu nu dimbalee goney bawal yi dimbali goney murid yi jàpp naa ne bay di dunde moom dana yomb ci Sénégal ndax ndax tayal moom am defuñ ko waaw loolu moom ci gépp wet moom foo la am murid yi da nga yëg ne moom nangu nañ te tayeluñ léegi nag li ñuy def ndax xam nañ ko xamuñu ko loolu la ñuy wax waaye nangu ge tayel gi moom nangu gi moom mi ngi fi ak bëgg gi